Sénégal ci bir àll ba ak bi nek ci capital bi bi ne bitim réew da danañ xam ni seen réew a dox te mu ngi exister ngir ñom sama taala. voilà sur la question Yewwi. <laughs> ah question la xam ah mais xala suivre débat mais non mais non le so su da nga bëgg non non la question elle est large xam nga tu peux pas me dire. sur la situation sur la situation de Yewwi Askan Wi. la coalition Yewwi Askan Wi ñii ne coalition bi amul problème. Euh, le seul problème qu'on constate exactement moi, pas Pastef ak Taxaw Sénégal Ça euh, xeer bi par presse interposée ak yi mel. Mhm. ah mais a un problème am problème problème moo ñu toog di mais on avait vu venir euh, souvenez-vous dès le début euh, mon grand Abdoulaye le dictionnaire bu baax euh, implosion ah mu ne du mot boobu sax parce que implosion mooy lu lu explosé ba tasaaroo ba ñu ku nekk dem mais lii benn pàcc bu dem la beneen bi scission scission xam nga Ablaye dafa aay nag ay scission parfois sax moo ma foog ni scission lay wax donc finalement eh, scission la la waaw mais man su ma neexee ne saucisson ok da nga namm saucisson namm dama bugguma ko sax donc sooy dem mag yi dafa xaw a sax saucissonné opposition <laughs> Euh, il a réussi son coup politique au sortir des élections locales ah hein, a hmm? opposition bi ils ont vu que Ben chance pour vous allez dans le département de Pékin l'opposition était divisée le parti au pouvoir gagne n'est-ce pas Mais en conjuguant leur force politique, leur électorat, ils ont renversé cette tendance. Quelle élection législative, vous avez vu, ils ont remporté beaucoup de départements. Et département ici, les Europe, nous sommes sur la nationale. Ce qui a fait mon ami Guéné Fibatou tout tes Mais moi, qui me disais, que am. Nous, dès que élections, il y xam nga politicien moom problème mooy élection bi donc il sait que aujourd'hui opposition bi loolu wax simple expression opposition a am na rouleau compresseur am na une dynamique unitaire et que au-delà de cette opposition on a eu des mouvements sociaux on a eu la société civile et bok donc donc il y a une machine qui était là maintenant le moulin a pris du sable pourquoi Parce que bataille de leadership. Hein? bi je parlais toujours de coalition politique à coalition électorale parce que élection B, ak que bay di ñëw si bi les alliances se font et se défendent. donc nous, sommes tous les deux. Nous sommes ay mais terewul ku nekk ak sa le gël gu yaa le la mhm. eh? et on ne peut pas interdire à une personne d'avoir ses ambitions mhm. je crois que Khalifa a une ambition, ambitions personne ne dira qu'il n'a pas eu ses ambitions je crois que c'est qu'on a politique, ay ambitions politiques euh, duñu ko en 2019 moi j'ai connu am naa sama benn xarit boo xam un sax ñoom il gars yi a eu des di qui ont wax etc. d'assassinat donc euh, ils ont joué sur leurs intérêts nous avons un intérêt dem dialoguer parce que dans la confrontation ils ont perdu des plumes donc jugeant que ici comment faire pour tirer son épingle du jeu Je Khalifa ne ah ah mo mel ngi dégg. oui ma lay dégg man na bok rek. donc na bok hmm. même s'il faut tourner le dos à ses alliés. il a pesé les conséquences de son acte politique. Khalifa bi mi jël décision bon pour dem dialogue y a une conséquences politiques mo ci am maintenant euh, du taxaw rek je pense parce que aujourd'hui euh, la majorité des leaders yi nga xamni ñom ñoom ñoo ci ci askan wi so dégloo sen discours wala une différents communication, tu sens nettement que ils prennent effet et cause pour Ousmane Sonko ouais. surtout dans ce contexte n'est-ce pas donc du coup pour moi, les idées des le contrôle de l'appareil politique quoi parce que quand Khalifa dit kenn mënu ma génne yeewu askan bi maa ngi yeewu askan bi conférence des leaders ça veut dire il veut montrer que moi, qu'il fait partie des géniteurs et qu'il est un actionnaire dans ça mais quoi qu'on puisse dire jàmbaar dëgg la bug. bëgg yeewu askan bi bu doon oto moteur moteur Ousmane Sonko là. peut-être dina am ko yore volant bi wala dina am ko indi pono mais moteur bi la locomotive c'était Ousmane zongo. ça il faut lui reconnaître ça Maintenant, c'est prévisible et à force de, de, se tirer dessus entre eux, ils font l'affaire de, de, la majorité présidentielle, ils font l'affaire de Macky Sall. Mhm. Donc Macky, en ouvrant le dialogue, n'est-ce pas euh, xëc ci ñenn ñi war leen bu ngeen defee ci njekk ñu waxtaanee ko ci njekk mhm. survie politique donc du coup

Ousmane Sonko est venu il a pris la place taxaw si kanam comprendre nga. Ndeye hmm. tu l'a dit hein, euh, certains avaient jugé que Ousmane Sonko le fait qu'il s'allie avec certains euh, n'est qu'une erreur moi je trouve que non parce que pour moi, si quelqu'un mënu fi dem yow kese comprendre hmm. maintenant euh, Ousmane Dougouti Kamri, nous, gi. ñoom ñu xool lu ñu nous ko wala hmm. donc pour moi, loolu moo ci maintenant li ci ñaaw déballage man vraiment. Nous, Sénégal Sénégal très rapidement tour table Benno Benno également. Benno qui peine à choisir. donc du coup on a deux cas. Hein. à faire un choix mais ce que c'est pas une stratégie justement pour euh, euh, le président Macky Sall euh, voilà gagner du temps. <laughs> non Macky pour moi c'est pas une stratégie parce que je l'ai toujours dit ku Macky mon moo ko dal parce que Macky il s'est toujours bon à ne pas avoir de dauphin il n'en veut pas bëggul ko am ambition a une ambition yëpp wàccee woon na leen rëqoon na seen donc finalement à force de faire le vide autour de sa personne dafay am difficulté boobu ensuite li taxoon mu képp sa affaire mandat bi ñu bëri jàppoon nañ dañuy bokk parce que mais à la fin quand Maki n'a pas le décret que Macky dans dans six mois, il ne sera pas ce qu'il était pendant 12 ans. Mais toutes les ambitions vont se réveiller et se révéler au grand jour. Maintenant, ça ne fait pas l'affaire de son parti. Parce que je t'ai dit, quel que soit Alpha, quel que soit le choix qu'il aura porté, il y aura de la dissidence. Et c'est cette même dissidence politique, addition-là. Ah, bataille, par exemple, à supposer, je suis candidat, je suis candidat, li mu jot am jolof ak yenn yi mu jot am dina ko tibb téel ko boppam. Mhm. su ñëwee mu choisir Canada un membre booy jaaw ne am na ay ambition Kolda am na fa tibb li mu am jaar na le kële jaar na le mais c'est fini pour ñoom. d'accord c'est-à-dire donc mooy syndrome bi daloon Abdou Diouf. Jiboo génn Moustapha Niass génn moo ko ci génn comme xam naa da ngay gérer temps bi. en tout cas bu doon bu doon bennoo bennoo bokk yaakaar la xaw ma. ñu toll nii bu ñu moytu seen yaakaar dina tas bu ñu amee ñaar ba ñetti candidat. est-ce que sax eh, ils vont se tirer une sax seen yaakaar tas na Ndeye Fatou. asalaamaaleykum sur Benno. ah sur Benno de moom y a des

ci biir compagnonnage bi muy le président Macky Sall. et que mhm. kooku bu daal di teggee. Mhm. moom tam day dem xëy peut-être daal di jël son destin à main. mais gis nañu Amadou Ba après le week-end moom dafa mel ni koo c'est lui le candidat choisi par le président. parce mhm. que boo gisee démonstration de force bi mu def à Kaffrine ah man dama jàpp ne Amadou am na luñ ko déy de. nee hmm. na nit ñi ñoo jotagul. ñëwee dañ laa waa tey li mu def ci Kaffrine moom. ku egg dañ ah, am na fu mu taxaw de. Hmm. Ah, am na fu mu taxaw moom parce que li mu def à Kaffrine loolu politique la c'est vrai phase nawetaan lañ doon lancé. mais mais ma doguma la sax man xam nga coow jaam sama benn aussi mais bu ñu waxtaanee rek. Hmm. Amadou charisme bi carrière bi ak parcours bi. ñeneen ñëpp am nañ parcours am nañ parfois ñu ne amul légitimité politique wala crib karab mais c'est-à-dire mënul ñëw ñu def ko premier ministre. c'est-à-dire ba pare au-delà. de son parti et de son cercle. non ñëpp a ngi fi ku mu neex nañ fi hmm. ne mais ma la logique politique bi mooy. Hmm. ñoom waa affaire bu ñu bëggee survivre ci situation bi. Ah. Hmm. bu Macky xëyoon ne leen diw mii la ñoom ñëpp ku si nekk fàtte intérêt parce que politique dajala la. d'accord la aale am mu indi. ñu bàyyi keelu ma am mu indi ñu tey bu ñu ko defulee bu ñu amatul bennoo ñu am ñaaroo ñettoo ñeentoo. Mhm. dinañ fori de. waaw loolu moom am na moom. mais loolu ay signe de fin la c'est que Ba moom c'est la candidature de la cohérence parce que bu fekkee ne moom lañu ñu jël def ko chef du gouvernement muy euh, dérouler vision ak politique gu président. kooku moo war a mën a jekk pour défendre le bilan du ah, président non parce que euh, ki nga xam ne mooy doon candidat bi xam nga kooku mën na indi proposition mais da koy basé ci bilan wu président Macky te yaakaar naa ku ci liggéeyul incarné woo ko piloté woo ko pour nga defendre ko dina jafe muy benn ñaar euh, ñi nga xamante ne dañu bëgg a beddeeku sans l'aval wala ñi nga xam ne président du leen campagnal parce que moom nee na suñu amee candidat consensuel moom mooy nekk son directeur de campagne donc il va s'impliquer à savoir que président am na benn coefficient boo xamante ne ci wàllu électorat moom moo ko moomal boppam la preuve bi campagne campagneul ci locale, campagneul ci législative feeñ ci seni résultat ah. donc s'il s'implique pour la présidentielle peut-être boobu ben apport lay doon bien que candidat wu Benno mom dina dina wax lu leer sénégalais parce que so xolé majoritairement ci électorat bi je ne pense pas que nous ñoo favorable ñi nga xam ñoy mouvance présidentielle donc ci division mom dal dañ ci perdre ñom ci majorité bi mais du lo xam dañ di profiter man